monsieur le maire je vais vous donner sama tur bon parce que les échange nañ ci ni tay euh man comme li ma wax fële rek euh, da je dalal suñu xel dalal suñu xel parce que suis euh, d'abord engagement bi mu jël euh, pour développer Congo, mais dalal suñu xel pour inscrire ces actes dans la continuité et dans la paix donc vraiment monsieur le maire euh, merci beaucoup euh, amatuma dara lu ma wax mënoon na wax à ma place comme man tamit mun na wax euh, à sa place hein vraiment merci à tout le monde et di féliciter aussi Ecotra parce que ñomit deug deug amul luñu jémul nak mais ay contraintes institutionnelles mo taxone yu bari mënuñu ko te yalla def na ba loolu yépp levé wona ñu ngi leen di féliciter xamna bu baax président le directeur général de ça va amna amna yéné am na et puis facile de commerce donc moo aussi ligne ngeen def et puis entreprise bu wóor la waaw bu doon ay entreprise yoo xam ne la wala xamuñ ko sax mun nañ douter mais entreprise babou wóor donc condition y réunir na ñun daal ñu ngi di féliciter bu baax bon enfin aussi le cas leen féliciter pour euh, aussi accompagnement bi euh, bu leen aussi doucement mois sur 12, il faut <laughs> à chaque fois aussi ngeen ñëw à côté au côté du maire de la seen de yi de des d'accompagner. et tous les événements bu match amé aussi ngeen def délégation ñëw population de leen xam ça aussi c'est une très bonne chose Merci. aussi le <laughs> maire bi je pense que c'est le plus grand cadeau que ñu leen offrir aussi c'est un stade départemental c'est municipal mais à vocation départementale euh, donc ne pouvons pas faire bon et pour cela aussi il faut accompagner pour l'entretien parce que l'infrastructure, infrastructure nous mu baax <laughs> dans quelques années mu mu mu donc on compte sur vous sur les ASC e. nous savons que stade bi c'est pour eux nous savons que stade bi c'est pour la population c'est pour la jeunesse Ce n'est pas pour le maire il le fait pour vous donc s'il le fait pour vous vous ngeen entretenir waaw ah, monsieur le maire aussi bon remercier peut-être les autorités administratives hein, le préfet hein, et tous les sous-préfets le commandement euh, aussi à travers aussi l'inspection des sports je pense que. ministre Mayasin Camara euh, merci Ecotra aussi par la personne de Aliou bon mom li gëna dalal li war gëna dalal xel sax moy mom citoyen Koungheul waale léegi parce que amna fi kër tabax na fi donc fi la dëkk donc stade bi wa ñu koy waaj may ben <laughs> donc di wax rek né bon damay feelu monsieur le ministre ci limu wax je pense que c'est bien d'avoir des infrastructures de dernière génération bien faites et tout mais su amul entretien tamit du du du terrain

may remercier nak bu baax a baax vraiment entreprise bi parce que biñu waxtané ñom vraiment jël neen décision wu ñëw jàpp préfinancer, jël sen xaliss dugal même su fekkenté ni amna lo xamné tay ne du yorel na len ko donc mais lool yëpp ñu ngi suivre pour jéem a ba nga xamné ñom du ñam ben jafé jafé ci loolu donc ma remercier len vraiment ci engagement bi ak yëpp ni ko ministre waxé muy une entreprise bo xamné de de Mhm. bo xamné Sénégal liñ fiy def ñëpp tek nañ ci bëtt donc euh, té ñuy doomu région bi aussi fierté leen donc jàppale leen and ak ñom def naa njëriñu département bi la donc euh, ma leen di remercier bu baax baax sen compréhension ak sen engagement suñu wet di wax né Koungheul li la moy Koungheul di remercier monsieur le ministre parce que bima ko waxé mënon na ma gantal mais dafa ñëw and ak man li tax ma bëggoon mu ñëw moy pour wané ne rek man ak mom on est des frères et que aujourd'hui ce qu'on est en train de faire là pour Koungheul Koungheul man bu ñu nekkee defe naa njëriñu Koungheul lay doon parce que lii moom moo ko tàmbali woon. moom moo ko tàmbali ñun dañuy ñëw finaliser su tàmbali wuloon xëy na duñu fi nekk di wut dañuy daw di wuti ji stade def yenn affaire yi donc c'est bien que moom mu tàmbali donc à un moment donné man dama ko feelu pour yeggali li mu sumboon donc ci loolu lañ ne dinañ ci avancer ba nga xam ne vraiment dinañ ko def ni mu gënee au grand bonheur de la jeunesse du département de Koungheul donc ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tàkk. réhabiliter les vestiaires les toilettes ensuite refaire la peinture des gris refaire un peu l'enduit si vous voulez du pourtour du, terrain de foot, refaire aussi la tribune. Donc, il y a comme travaux. Bon, je pense que si nous avons déjà un stade euh, digne de son nom, praticable. Et puis, entre autres, il y a aussi la piste d'athlétisme Après ça, il donc yooyu yëpp après entreprise bi daal ñu ngi fii wax neen ngeen dégg ñoom dès demain ils seront sur le terrain pour commencer travaux yi bon espérons que du yàgg di ngeen ci mën waaw <laughs> merci <laughs> merci na fi loo xam ne tey ak mais amna ay jafé jafé yu métti déjà marché marché marché au au bi bi nek fi terrain basket bi c'est prévu dañ koy defaraat donc amna sax d'ailleurs les projecteurs sont là-bas on va les mettre donc yoyep yëpp xam leen d'albaï ou une tranche du monde sportif d'ailleurs on vous annonce ici qu'on va construire aussi un dojo communal auprès du terrain de basket fële pour appeler les pratiquants d'arts martiaux santé gërem surtout à l'endroit de mon frère Maya Camara santé aussi le monde sportif et puis l'entreprise Kiliman. sante bu aussi CDK Nous ñi waral li ah, parce que nous sommes venus Sénégal ñu bari nañ ko ay ñoñam bëgg nañ ko samay ñoñ bëgg nañ ko mais mosuñu am opportunité bi mais donc su CDK yàlla defee ci bésu CDK lu mel ni am dañ leen di sant gërëm leen di wax rek ne moi en ce qui me concerne dinaa def lépp lu war pour wan ko ne ko il a été mon frère il le sera pour toujours donc loolu moo am solo te sociétal moom dina leen taxawal fii boo am na jàkk boo xam ne bu julli jotee nit ñi dinañ mun dem julli ji foofu loolu tam lu am solo Abbiamo per le